manque de volonté manque de respect mhm. envers les candidats envers les sénégalais mhm. donc loolu boo ko seetee côté yëpp da ngay gis ni vraiment tey dignité image u Sénégal la ñu fooye moom moo ci gaañu est-ce seulement Macky Sall est-ce notre administration et nos intellectuels les professeurs ñi nga xam ne agri de droit fan la ñuy taxawati à travers le monde pour jaay seen image bu fekkee ni si les irrégularités yi nekk ci Sénégal mënuñu ko lijjanti à l'Assemblée mënuñu ko lijjanti sur le plan judiciaire mënuñu ko lijjanti même ci côté administration mais nan la ñu mën a siggee tey képp kuy doomu Sénégal lii ñu xëy di gis ni gàcce la ci ñun. ak ku mën doon intellectuel o professeur koo mën a doon tey di nga sëgg te li indi loolu moom mooy le fait de vouloir organiser les élections fair gañee li nga xamante ni moom moo di benn benn camp et loolu gàcce la élection yi warut a mën a taxaw warut a mën a am waruñu cee mën a dem. et ñi ko doom laam-laame ñëpp oh, tey oh, jii Kader waruñ ci mën a dem non warul mën a am parce que déjà élection yi dañu ko war a départ bi baaxul départu élection yi baaxul ni ñu ci duggee baaxul li ko tënk baaxul parce que kii organiser bi moom li mu bëgg mooy man ma gagné quel que soit lii xew man sama yoon newu ci naa gagné et loolu rek moom moo am. alors euh, excuse-moi mais bu dafa mel ni yow da ngay conseiller à que élection yi ñu ñu euh, repousser ko. Ah, loolu amul sax xel ñaar. mais mais c'est trop tard man ku ma dégg non foofu man damay taxaw ni la képp ku ma mës a dégg dama ni élection yi amul pour mu war a mën a am et chaque jour loolu day gën di nekk dëgg li ma wax ça fait presque un an et quelque donc chaque jour que dañ koy gën a jege. du ma changer sama position fi ma taxaw varié wul la ma ni Sénégal ren mënuñu fi organiser ay élections yu transparent mënul nekk. mënul ne képp koo xam ni pare nga pour dem ci élection yi pare nga pour soutenir li nga xam ne si moom moo di luy delloo démocratie ginnaaw mhm. pare nga pour ñàkk mais pare nga aussi pour tuumaal ak toroxal sénégalais ci seen vie parce que non seulement conditions yi ñu demee baaxul mais après candidat bi ñuy élire xamuñu ko on est à deux mois des élections kenn ci ñun amul certitude sama candidat dina jàll. Mhm. on obligé léegi ñu imposé ñu ñoo xam ni on va se dire yàppat oui y' a façon de ñi fi nekk dañu fi jógee ñi fi nekk dañ fi jógee mais ki ñuy fal la bu fekkee ni ñi fi nekk dañoo ëpp doole ki ñu tànn fan lañ jëbaat donc amuñu ñun amuñu issue issue bi lenn rek la mooy taxaw léegi léegi léegi léegi opposition bi yëpp se réunir se dire que ni irrégularité yi na dañ léegi léegi léegi léegi. Ah ah ñu annuler li nga xam ne moom moo di parrainage bi dañ ko war a annuler système d'informatique bi baaxul. léegi nag pour que ñu dem ci élection yi li ñu def. mais mais loolu fallait se battre. non non non maintenant il n'est pas trop tard. su fekkee ne si ni mënuñu dañu forcer pour que ñu dem ci élection yi ak fichier bii nga xam ne si moom moo nekk di éliminer les candidats mieux vaut ñu annuler ko dindi parrainage bi continuer étudier le dossiers. Mm-hmm. auditer dossiers yi seet candidats yi est-ce que sur les neuf documents yi nga xam ne moom la ñu est-ce que lépp nekk na en règle. mais bi ñu xam ne les Sénégal ont choisi ñii lañ tànn ñi ñu tànn ñu bàyyi la dem ci élection yi léegi nag. ñi conseil constitutionnel di génnee mooy ñi nga xam ne seen déjà wax na ne ñii seen i dossier moto wala ñii kat ci seen i dossier li ci manqué permettre leen ñu dem ci ay élection mhm. mu ñu jël seen courage à deux mains ne ñii mënatuñu bokk mais que vu que on a un problème de défaillance technique bu ñu maîtriser wul loolu nañ ko tegee de côté parce que c'est pas la faute à l'opposition c'est pas la faute à ñi nga xam dañoo jël seen i ay clé parce que clé yi état moom moo ko fournir bi ñu ko fourniree jox leen ko DG yëkkati jox leen ko jox leen ay fiche te DG bi ko joxee moom ci boppam xamul lan moom moo nekk ci euh, euh, machine yi y' a problème. Mm-hmm. naka lañ lay joxee ay clé yoo xam yow amoo ci benn maîtrise alors que vous êtes chargé pour organiser les élections. Mm-hmm. techniquement logistique ak lépp yow yaa ko yor. Mm-hmm. alors que départ bi xamuloo ci dara pourquoi DG amuloon accès ci dem conseil constitutionnel ni leen est ce que mën nañu vérifier base bi lan la. kan moom moo leen fournir fiche bi euh, bi ngeen war a demee ci consulter pour kii parrainage bi est ce que. DG moo ko joxee le ministre de l'intérieur daaf moo ko joxe fan lañ ko jëlee loolu ñoom DG bu ñu taxawee ni xamuñu ci dara le ministre de l'intérieur taxaw ni moom xamu ci dara kenn ku ci nekk mën taxaw ni xamu ci dara kan moom moo xam fiche bi ban fiche la kan moom moo xam logiciel bi nga xam moom la ñu kan moo ko defar parce que DAGE moom nee na defarul te wane na ni defarul clé yi ñoom dañ leen ko jox ni leen joxe leen kon donc conseil constitutionnel moom moo am ay ses propres techniciens est-ce que am na ci sañ-sañ ay techniciens boppam installé ay machine am ñu jox ko fiche boo xam ne si ne ni Sénégal yi kenn xamul ci dara ñuy trier donc ñun maîtriser wuñ dara de rien rien de rien maîtriser wuñ ko léegi suñu jugee loolu lépp nga xool candidat yi ñu éliminer ba fii ni ñu toll mais saa waay unkal yëpp lañ génne donc ñan ñoom ñooy dem ci élection yi. duñ ko nangu de. en deux mille dix neuf. deux yi nga xam ne ni deuxième bi ak troisième bi mu nekkoon Idriss Seck ak euh, Ousmane Sonko éliminer presque éliminer Sonko moom c'est sûr qu'il est éliminé mais Ousmane euh, Idriss Seck gàcce la ci moom muy dem di def deuxième tour koo xam ne si ne ni aux élections présidentielles 2019 yaa jël deuxième nekk chef de l'opposition ci li ñu ci li fi mujj bien que après li fi xew ak Ousmane Sonko xam nañ ko parce que liggéeyul mais quand même deuxième c'est deuxième mais waruñoo ñëw ba ci élection yi topp ci moom ñu ne moom peut-être que il se peut du jàll loolu naka lañ ko mën a expliquer les Sénégalais même bu fekkee bi àndoon ak moom yëpp na mais Idriss Seck moom képp kese mën na fournir dix mille as. mais mais loolu est-ce que wanewul ni que les sénégalais se détournent ci ci discours politique yi. c'est pas que les sénégalais dañu détourné wu ci discours politique mais Idriss Seck quel que soit Alpha c'est Idi. Mm-hmm. ak lu mën a xew. donc su fekkee dañu éliminer Idi pour sacrifier ko pour wane le bon exemple malheureusement choix bi baaxul. Mm-hmm. parce que tey jii Khalifa Sall ak euh, ki nga xam ni moom moo di euh, Karim jàll premier tour cela ne veut pas dire que génn nañ parce que keroog bi nga xam ne Mame mbay Niang ñëw na toog fii ci télé bi di wax dama ne Mame Mbaye Niang invité wuñ ko mu ñëw parce que télé bi moo toll nii wala émission bi moo am boobu doole parce qu'il avait un message à faire passer et le message c'était de dire à Khalifa Sall et à Karim Wade attention on vous à l'œil bu leen dof am na pacte bu ñu am ñoom seen biir et ba léegi nii Karim xam na Khalifa xam na Macky xam na te loolu moom moo fi indiwoon woon Mame Mbaye keroog bi ñuy def meeting d'investiture benn message moo fa yóbbu Macky Sall on va gagner au premier tour point festivité bi li fa xew yépp rien n'intéressait Macky Sall moom mooy wax ci gémminam qu'il va gagner au premier tour il va faire gagner ñi nga xam ne ñoom la àndal Amadou Ba va passer mhm. dégluwaat leen ko pour la première fois Macky Sall di def discours à la nation avec la voix tremblante kenn xamul lu muy wax mu ngi wax ñu ngi koy dégg mais tegal Macky tous les discours yi fi jàll nga teg Macky bii barki démb il tremblait pour la première fois il titubait même ci ni mu doon waxee parce que il était trop hésitant sur les mots est-ce que war na wax wala warta wax dégluwaat leen mhm. combien de discours presque plus de dix discours Macky tenir na ko devant nous mm -hmm. donc cette fois-ci damay wax ne discours am bi moo gën a médiocre ci fi mos a jàll mhm. lan la loolu di undu lan la li nga xam ne si moom la Sénat taxaw Sénat xam nañu fi mu toll nii ci liste ñaata nit ñoom ñoo bindu tey ji soo gisee ay irrégularité yoo xam ne dafa taxaw ñëpp ku dem ñu ne la ci parrainage baaxul mais Sénat moom dafa bokk ci commission bi nga xam ne si dafa war a observer les élections te yow ci fiche bi nga war a observer nga gis ci ay irrégularité li nga war a njëkk def mooy dem interpeller li nga xam ne si ni moom moo di conseil constitutionnel mm. ne ko atta parce que man ci fiche bii nii ci la ci ci bi ci laa la war a atte léegi list bii nii lan moom moo tax yii ni am ci. est-ce que nekkul les zone yi nga xam ne si ne nii ci élection locale yi ñu jógee li ci ëpp li opposition bi ñoo ñu lañ génnee ci list bi. mais mais pour lan parce que ñooñu ñëpp zone yi opposition bi gagné yëpp bu fekkee ni si dañu leen a génne ci list bi jour élection yi bu ñu demee du ñu bokk. léegi loolu moom mooy sàcc élection. parce que sàcc élection doo ko mën a def ci jour bi. Mm-hmm. avant nga ko mën a teg pour teg ko avant mooy. génnee ñëpp ci liste bi c' est pas que Ousmane Sonko dong la ñu rajee ci liste électorale bi jëm parce que la ñu rajee mais est ce que moom kese la ak li xew depuis tout à l'heure yaa ngi naan euh, éliminer éliminer éliminer mais est ce que conseil constitutionnel moom mooy éliminer wala ñi nga xamante ne parrain yi nga xamante ne dañuy parrainer plusieurs candidats mais euh, li ñu la wax ni la ñoom ñoo parrainé dépassé na li nga xam ne si ñoom ñoo inscrit ci list bi élection 2019 ñi voté ñëpp 3 millions cinq cent vingt cinq cent cinquante huit personnes liñ la wax ni ñoom ñoo inscrit ci parrainage bi ñoom ñoo dem parrainé liñ la wax ne boo ko totalisé mot na huit millions bu bennoo jógee taxaw ni man am naa quatre millions Pastef jóg taxaw ni man am naa trois millions Bougane ñëw ni am naa un million keneen ak keneen ainsi de suite boo ko totalisé rek romb na loolu di dem kon li ñuy wax moom mooy bu ñu génnee li nga xam ne moom la bennoo wax ni am na ko 4 million nee na mi ngi ci trois li yan trois la ñu ko teg su fekkoon ni moom dafa jël loolu utiliser ko dugal ko ci base de données bi ne man lii laa indi bu boobaa mën nañ comprendre que lii moom moo waral fi mu ko ne doublon lu mu denc ci trois la 4 millions de moyens la kon léegi ñii bu ñu demee ci parrainage machine bi waruta mën a buté ba génnee ay xoolal tey li buggaanam presque dix neuf mille dix neuf mille doublon mais ça ñaata trente trente et un loolu dafa ëpp loolu dafa ëpp ëpp na li ñu doon xaar sëriñ boobu treize mille mais mais affaire doo mën a doo mën a justifier lu dul ni mhm. ñii sont animés de mauvaise foi pour dem ci élection yi te lu ñu bëgg moom mooy gañe par force et loolu nag nañu xam ne si ne àdduna bi ñuy observé mhm. et li ma ci gën a metti mooy CEDEAO lu muy xaar avertiroon nañ ah, avertiroon nañ bu yàgg mhm. mais pourquoi léegi situation bi ñu duñu seetaan loolu la xaar ñu dem ci guerre civile wala lan mais nañ intervenir Yaya Jammeh bi mu ko defee mais dañ ko faa fekk te Macky moo ko organisé moo nekkoon ci bopp ba. donc tey Sénégal moom moo nekk ci tàllal loxo adduna bi. Mhm. parce que aussi bu ñu jaawale gis nga bi ñuy taxaw di wax fii ni Ousmane ko nangam la woon parce que moment boobu il fallait que Ousmane dellu si waat à la raison. mais fii aussi du ñu nangu Macky Sall ak ñi mu àndal tamit. tée Sénégal yi di leen fooyee di foowee li nga xam ne moom moo di turu démocratie ak liggéey bi Sénégal liggéey ba ak si fii mhm. te boo seetee élection yi moom mooy suñu dixième élection présidentielle yu Sénégal di organiser pourquoi bii nar ci nekk bi gën a bon bi gën a médiocre warut a mën a nekk ku organiser dix élections présidentielles neuf dixième bi waru laa mën a jaaxal mille neuf ba léegi uh-huh. mais quand même alors dañu waxante dëgg il faut que quand même vraiment ñu ñaan gars yi ne leen uh-huh. nañu taxaw élection yoo xam ne sur le plan judiciaire ténor yi wóorul la ndax nañ dem. xalifa mhm. sàll Karim wàdd usmaan Sonko tey ñi ngi wax kaawu Habib Sy te mi ngi ci yoon nga continué waat buggaan xamul fu muy taxaw. parce que li ko dal nii dañ ko séntu lépp ñëpp ñoo xam ne seen taxawoon nañ wax noo à la troisième candidature de Macky Sall. tey ji ñooñu la ëlbatiku jàkkaarloo pour fudd seen digg te commencé na ko ci ponkal yi ku dëj ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko dëj Bougane dëj ñu fi nekk jaaxalu la. du fodé mhm. il faut que les sénégalais jël seeni i ay responsabilités jóg taxaw seet suñu démocratie lu mu ñu jaral ñi nga xam dañu bëgg a dem ci ay élection kut ko kut jàpp ne dañuy gagné wala par force ñu moom élection yi nañu xool ñooñu ñan la ak lan lañ ci jublu élection yi mënuñu ko organiser ci un mois <laughs> mu sotti fi. ñu joxe verdict bi daal di alors on, verra ce que les autres en pensent tout à l'heure en attendant euh, ma jox parole Aliou Sow moom également mu wax ñu nan la gisee euh, très rapidement dégg nga ku ci nekk avis bu mu am ñu ñu déglu la yow itam. Euh,